sëriñ Touba radiallahu anhu ak xam-xam sëriñ dafa ñëw ngir yeesal si sunna si yonante bi sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ni yonante bi wax na ci xadis ni yàlla dina def bépp téeméeraat suñu borom dana fa wàccee ci xeetam bii koo xam ne day yeesalaat diine ci xoli nit ñi ndax nit dafa gaaw a fàtte saa bu ñu amee lu ma téeméeraat ba dañ ko am sax nit ñi dañuy fëtt lañ jàngoon booy fee suñu borom dana ko dugal ci xolub nit ki def ko ci ay tiram def ko ci ak ruuxam mu di ko dund dund bu wér ba mel ni ñu ko daan dund jamono yonent bi sallam ba loolu doon aw lay ci képp ku bëgg a dundaat diine dana gis foo ko jaar moo tax Sëriñ Tuubaa bi li mu wax mooy lil Mustapha nawaytu maa yu jaddidu sunnatahul xarra lu yeesal sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa wax ni sunna alquran ak sunna du luy màggat waaye day màggat ci xoli nit ñi ñu war koo yeesalaat ci seen i xel yeesal ko ci seeni xol ba ñu dundaat ko moo tax yeesal googu lim laaj kon jamono bu ne mooy mu ñëw yeesal alxuraan la alxuraan junjoon mu joxañoon mu joxañ ko la mu waneoon mu wane ko moo tax nu alxuraan ak wax yonente bi fonke xam-xam day feeñ ci mbindum sëriñ Tuba sëriñ bi wax ni yaa ayyuha sibyaanu di digal gone yi di digal waxambaane yi ni leen yéen gone yi na ngeen farlu ci sàkku xam-xam yaa ayyuha sibyaanu laa tashtaxilu anil huda yéen gone yi bu leen bu leen bu leen bu leen soxla woo ludul ak njub wa bil ulumi istaxilu na ngeen soxla woo it xam-xam yi fastaxilu bil xifdi wa tilaawa na ngeen fexe ba seen itti jëpp na ngeen ko def ci di mokkal ak sa saxaawat na ngeen di moytu jataay yi nga xam ne jataay taxit la bu ngeen fa demee du ngeen fa déglu baax du ngeen ko fa amee du ngeen ko fa xamee na ngeen di moytu jataay yooyu tey tànn jataay yi nga xam ne jataay yu ngeen di jube la jataay yu ngeen di dolli ko xam-xam la jataay yu ngeen di eh, dolli ko ak mokkal la وخباني من يا أيها الشبان إن خفتم خجل فقدموا تعلما على عمل يين وخباني بفكي راجل نجن قاتش نجن جيتل خم خم تجف دلوات ني ني ني خالبي ني ني ني جلد بيغا خمتن دا دي دا جوب ديم تبرون تايد إنك كادهون إلى ربك كدهن فملاقيه نيت نيب ñi ngi dox waaye ci seen boroom lañ jëm te fokk dañuy dajeeg man mu ne nag wala takun fi kulli yawmin taarika taalluman summa bi ihmal naasika bul bàyyi mukk xam-xam ci benn bis bis bu set na nga fexe ba am ders bu bees ders bu bees bu nga xam it na nga fexe ba jëfe ko noonu mu soññee ci xam-xam ni al ilmu wal amalu jawharan xam-xam ak jëf mi ngi mel ni ñaari wurus ñaari gànjaar yu seer yoo xam ni lu ci bëgg jënd mën ko ci jënd ci yiwu àdduna ak yi alaaxira li xayri daarin yajluban xam-xam ak jëfe ko ñaari gànjar lañ yoo xamante ni dañuy xëccal nit ki yiwu àdduna ak yiwu alaxira mu teg ci ne fa fiiha majtahid kon na nga ci farlu wa fi tasfiya ak sellal ko min kulli aafatin ci bépp gàkk-gàkk wa fi tanqiya ak sellal ko mu wax ni xam-xam ak jëfe xam-xam na nga ci farlu te lépp lu ko war a yàq nga fexe ba randale ko mooy jamono bu ne ngay xam di jafe di bàyyi xel di moytu di góorgóorlu ba lu ko nar a yàqul ñu dañ mu del ne wa man nahaakum an taallumi fa nahyuhu ila dalali yantami képp ku leen teru xam ku leen tere xam lu na ngeen xam ni tereem googee ak réer dong la daal ci teg ni is kullu man fi da zamani manaa من التعلم فإنه دعا لبدعة شنيعة إذ العمل إن لم يكن بالعلم شاب وخلل موحني wax كو خمني ميلين تري خملو na ngeen xam ne ci réer la leen jëmee ndax jamono bi ñu toll kat képp ku tere xam lu xam la jëmale ci bidaa ndax jëf ju mën a doon bu ante ko xam ay yàqu-yàqu yu bari day jaxasoo ak moom. daa cee tegit ni is kullu aamilin bila ilmin yura fa saayuhu mislu habain nusira bépp aji jëf yuy jëf te la muy jëf teg ko ci ak xam jëf ji dafay mel ni pënd bu ñu wisaar ndax lu ko yàq day yomb lool waaye nag wa man xawaa ilman wa laysa yamalu bihi fa innahu ximaarun yaxmilu daal waaye nag képp ku làkk xam-xami nag waxuñ xam-xam kese da nga koy jëfe xam-xam bi boo ko làqee te jëfe woo koy jaag mbaam mu ñu sëf ay téere yéen yam kon ñaari ñooñu ñu bàyyi xel ne ci li fondation ci li ci li sos tabaxu bi sëriñ Tuubaa tabaxu bi yoon sëriñ Tuubaa bi ci la bokk muy xam ak jëfe xam-xam